la mel na ne luy dem bala mépp na Bombardier bloqué na. ay pexe lay wute. Bombardier dafa defaraan na taxawaayam. defaraan na taxawaayam. ah Bombardier bala dooroon ca noonu. ba bala ngi dóor. songo bi bala loxo càmmoñam jàppul fenn. moom la bëgg a jàppee moom la bëgg a jàppee Bombardier jàpp na. waaw. Bombardier jàpp na. baalu bu fekkee loxo ndeyjooram jàpp na baax na waaw lii rek moo garaaw boo jàppee bu mu jàpp. baal la bëgg na Bombardier teg ci loxoom Bombardier bañ na. Bombardier bañ na. Bombardier loxo ndeyjoor bi mën naa wàcc plaqué. mën naa wàcc plaqué bien sûr. ma ngay jéem a ma ngay jéem a fayu moom Bombardier ma ngay jéem a fayu faqat war na am fii déséquilibre à droite war na am fii. man damay ragal damay ragal damay ragal faqat am. moom it nga sigi noonu. damay ragal fàqadam. man ko ñaar nga fo. waaw. balaa ngi bëre balaa ngi yi. Balla moytu bi. téere yi dagg na. Balla moytu uppercut. Bombardier Balla. ci Balla Balla yi lépp a dagg. waaw la newoon ca kaw yëpp a wadd. waaw Balla Gaye sori na ci jàpp na ngeen. sori na ci Bombardier de. Balla Gaye boo na mën Yes. xamante ne dafa bàyyeeg boppam Balla Gaye xaw ma nag dafa am lu muy fexe wala déet mais fi ko Balla Gaye téye. war ma yee war na ma di ba war na ma di Balla Gaye jaar ci boxotaan yi. waaw waaw. ndax loxo loxo càmmoñ ubbeeku na. est-ce que ko kot. noonu ñu baaxul. foofu sax maa fu maa fi pàtte mën na am. waaw pàtte mën na fee am tànk yi dajaloo noonu. Balla Gaye taxawaayam baaxul ndax tànk attention. attention. Balla Balla Balla ngay xañ ko mu jàpp. ok mbokk yaa ngi liggéey fu mu nekk nii. dégg Balla Balla moytul dóor yi. Balla moytul dóor yi. Balla déedéet. Balla. mboot ma nag mën na andi beneen problème. Balla Gaye sori nga ci moom lool waaw dem si waat na. moom mu jàpp fenn wër na ko. position Balla Gaye féetee loolu ne bot na cumukaay Bombardier léegi moom Balla Gaye. waaw Bombardier yi bot na cumukaay Balla Gaye. Bombardier dafa dër de. Bombardier jàppatul fenn. ñaari bëri yu ñemeente ñaari bëri yoo xamante ne tamit dañoo dañoo am ak Bombardier bu ñemee Balla Gaye la ci biir bëri quand même. bien sûr assurance lay bëree. ba pare da ko xam sax. waaw boo gis ni mu bëree tey kenn ko woon waaw. et puis Balla ay coups. ci songo bi jël na ay coups. Mhm. waaw waaye boobu du côté Bombardier côté Bombardier côté gauche ba la. côté gauche ba la waaw waaw. ne càmmoñ ngay jiital. téere yaa ah. <laughs> yaa ngay tàggoo téere yaa <laughs> ngi xool fu muy jaar waaye Bombardier toujours dafa bañ. Balla na moytu plaqué bi. bàyyi xel parce que li tax mu xañ ko mu jàpp yëpp plaqué bee tax. Bombardier est très serré dans ce combat. waaw ñun dañ koy téye taxaw assurance. waaw jéem a soog soog ba pare di noppalu. léegi bal la jox. loxo càmmoñ bi la bëgg mu dugg. waaw loxo ah, nag su duggoon rek la mu commencé bëre. waaw bu duggoon rek mu wicci. commencé bëre waaw. ci kaw téye loxo défensif mooy ndejoor Balla Gaye téye loxo défensif mooy mooy ndejoor moom tamit. waaw dégg nga donc ñaar kenn mun dóor fu nekk nii. boo ma jëlee loxo droite bi nga a dóor Gay mi ngi dëñ. et puis am na dóor bu Bombardier dóor Balla Gay. téere yëpp a teg. ok waaw. ci la bokk. loolu tax des fois dafay tàngal mbër. mbaa mu tax Talla fob na ko. dafa diis dafa diis dafa diis. sama ndey wuy sama ndey ci ginnaaw ci ginnaaw kii arbitre bi sànni baal ci appréciation bi. waaw waaw sànni baal ci arbitre bi lu mu wax. parce que bu fekkee site bi. ba ma ji bu mu dem de di yàq bu mu yàq waaye na taxaw. non non non dina taxaw dina taxaw ak lu mu la def. ñu ngi waxtaan ak gaan waaw mais nan leen nan leen xool et action bi ci biir la commencé ci biti. waaw ah. loolu tamit nan leen ci waxtaan. Ah, loolu yëpp eh, su jël amee arbitre da koy joxe ah, ah bi. combat bi ci biir la commencé action bi génn ci biti. waaw. noonu tamit seen seen bi tamit genre lu muy daggee nii tamit c'est pas possible. bu fekkee boo jël action bi. waaw lépp ci kooram. waaw. dafa nekkoon ci biti. bu defee action arbitre bi du ko am. ana garaajo garaajo war ñu gis. ci biir ci biir ak garaajo ralenti bi mënoon nga ko profité indil ñu ko. Ah, mun na nekk lépp ci kooram. parce que combat bi ci biti la commen lépp ci biir la commencé jeexee ci biti. waaw mais nag arbitre bi xam na règlement moo la mën a wax li xew lan la. moom moo ko mën a. moo ko mën a wax. mu mel ni Bombardier actuellement nii gën na jël confiance. waaw mu mel ni encore Bombardier fu mu ne nii mi ngi commencé tàng te Bombardier bi combat mu gën a gudd mu gën a présent te bu ñu xoolee jàppante frappe bi aussi dañu gis ne Bombardier Dieng mu domine spécialité ci frappe bi. Mhm. su ñu jàppante tamit doon na ay percute. Mhm. Balla Gaye ba léegi defagul ay action yu ñu mën a gis. Mhm. léegi lan la arbitre bi bëgg a def day jox avertissement Balla Gaye. waaw ah, sorti ok sorti la joxe. benn avertissement kon benn avertissement. Balla Gaye génn na pare arbitre bi la mooy ñaar. Balla Gaye am na ñaari avertissement. waaw attention. waaw lamb ji mën na jeex ci polémique. waaw loolu lamb ji mën na jeex bien sûr ci polémique. parce que lii il faut ñu xoolaat kon bu sa action bi bu fekkee ñi ngi ci wet saako yi di bëre li ëpp kooru Bombardier primeiro dee bi muy def action bi dafa génnoon su boobaa duñu ko bi ñuy a gérer boppam bañ a mam bañ bañ a déranger waaw taxaw o waaw Balla Gaye nag boo ko waroon faj ci loolu delloo sa Balla moo war a indi rythme waaw rythme boobu boo ko voilà en tout cas bi mu duggee ci lamb ba ba léegi dafa sëre avant ak pendant mi ngi ni teg di bëri. et puis sportivement parlant Bécaye. waaw avant Bamba avant daanu ci biti. waaw signe mu wane ba accepté daanu tamit. waaw euh, dafa mel ni kon dafa mel euh, boobu lâché woon na prise. waaw tu vois ko di ñëwal bëri. Ah, lii day yàq laa ma jëlee. non Balla Balla Balla. yi. dafay jéem a am na avantage bu avertissement bu ci bu temps ah, na ñaar. waaw waaw ah, oui. te loo am jël. parce que ñu ngi commencé 39 te il est loo am jël. les bi jeex na. léegi pause bi mën na may Balla Gaye mu récupéré amaat saa bu bees mayaat Bombardier mu récupéré moom tamit